salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba mu leen nuyoo di am contentement jën ak yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi nag mooy leen indi li gën a fas ci bopp xibaar yi ci noonu damay nuyu ñi ma feggoo rek ñu daal di ñëw jukkil leen li gën a fës mbay nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke fay naa la nuyu bu baax a baax suñu mbokk suñu mbokk yépp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam ñaanal bu baax a baax ñi tawat nekk ci biir kër yi wala ñu tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla nañ jóg ñi caabi féete gannaaw ñi ngi leen di ñaanal ñu génn fa ci jàmm ak salaam ñi jiitu ci këru dëgg yi ñi ngi leen di ñaanal bu baax a baax suñu borom yóbbu leen ci ak janaam yu kawe ya képp ko jafe-jafe àdduna nekk ci sa bopp ñu ngi lay ñaanal suñu borom génne ko ndax dama koy faral di wax jafe-jafe bi nekk ci bopp doomu aadama bu wàccoon ci ay tànkam du mësa jóg ba naan day dox kon yàlla suñu borom saafara jafe-jafe yi nekk ci bopp doomu aadama yépp yàlla na yàlla jàmm ci suñu réew def ko ci àdduna bi amiin Assane Wala nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internet Leewtoo TV amaat mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fas ci yéene kaay yi. mardi 4 mai 2021 Leewtoo point net laay doore ak xibaaru làmb lam ci xam ne nag mooy rëg-rëg après sa défaite évacué à l'hôpital Mbaye Babacar. gannaaw ban ko daanee fële ca Singapour moom rëg-rëg muy première défaite am ci wàllu MMA gannaaw ba mu teglee ñetti victoire rëg-rëg li mu xam xamle mooy bin ko kaawoo ba noppi nag dañ ko yóbbu fële ca hôpital. ngir càmbar wàllu wér-gi-yaramam avant muy dellu si Sénégal Assane dëgg la Mbaye Babacar Reug ji pop ji boppam moom moo ko xamle ginnaaw bi mu jógee euh, euh, Dubaï ñëw euh, Sénégal semaine bi passé bi ñu ko joxee kàddu nag nee na après bi ñu ko kawoo nee na hôpital la demoon ñu seet ko avant muy revenir ci hôtel bi mu nekkoon ñu fàttali ne Reug Reug kii di Kirill Grishenko moom moo ko gagné jeudi bi passé mu nekk première défaite nag ci MMA ndax jot na def trois combats trois victoires avant combat boobu daan na Sofiane Boukissou daan na Pierre Alain Galani daan na également kii di Patrick Smith Mbaye Babacar. te noonu nag journal suñu làmb lañu jëm moom ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk lam ca xam ne Balla Gaye numéro 2 Boy Niang 2 Ama Baldé Modou Lo grand. contre petit mbay baaw ko ñu daan naa fekk si leen dóor grand contre petit te noonu nag ngeen kii di Balla Gaye numéro 2 Lamine Tante nag mooy remettre kii di Boy Niang à sa place Modou Lo la mu bëgg ci combat bi mooy leeral yëf yi xam ne wane ne carrément moo man kii di sëll mu ndaw ba ca Pikine Mbaye Babacar. suñu làmb moo xëy bind loolu leen nee na ngelawu grand contre petit bi yëngu na fi mu toll nii fi mu toll nii amateur làmb yëpp ñaari combat yooyu bokk na ci combat yi nga xam ne moom la ñuy gën a bàyyi xel muy dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang numéro 2 wante diggante Modou Lo ak Ama Baldé di combat royal tamit ñu tuddee ko grand contre petit di ay combat yi nga xamante ne bii Assane combat yi ñuy xaar la Balla Gaye moom li mu bëgg. mooy tegaat Boy Niang fi nga xamante ne bii mooy place sama won ko ne du ma sa morom du ma sa màppandoo wante Modou li mu bëgg ci kombaam digganteem ak kii di amaa Baldé mooy xamal ko ne couronne bii ma yor ay caaxaan du ko jëlee ci samay loxo. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi ñu doon gis ay ténor rek di daje seen biir maanaam Balla Gaye di dajeek euh, Modou Lo Balla gay di dajeek Eumeu seen Eumeu Sène di dajeek Modou Lo ñuy wër loo affaire bi seen biir maintenant nag dafa mel ni grand contre petit jot na ndax gis na ne Balla Gaye na Boy Niang kii di euh, Modou Lo jël na Ama Baldé Modou Lô ak Ama Baldé ñoom ñooy bëre euh, roi des arènes loolu Luc Nicolaï moo ko tëgg mi ngi ko prévoir vingt cinq décembre lu fa euh, Modou Lô war a def nag moom mooy mu freiné Ama Baldé ndax bu mu jël couronne bi ci moom Balla Gaye également war a dajek Boy Niang 2 Boy Niang 2 nga xam ne yàgg na koo tëkku ñu dajaleen Gaston moom moo leen dajale Boy ñaa également wala kii di euh, Balla Gaye 2 li mu war a def moom mooy tegal boo Niang place ndax da war na ko wax moom agseegul foofu ci ténor yi uh-huh. te selon nag kii Xarim Samb sur sa journée du 7 août lam cee xam ne nag mu ne je veux que ça soit une fête lam bëgg nag mooy journée bu mag a mag Mbaye Babacar. Xarim Samb moom mi nga xamante ne bii moo dox moo tëgg diggante ñaq jariñu ak kéwél. Mhm. incha allah mu jàpp ko le 7 août bu ci yàlla àndee nee na journée boobu da koo bëgg def événement bu mag. def ko journée ba nga xamante ne bii fête nationale lay doon ndax olof Njaay nee na bis du tuuti boroom lay tollool te xaadim koo xam ko nekk lu mu organiser lu nekk warul nekk événement bu ndaw. dëgg la Mbaye Babacar jour boobu xaadim Samb euh, combat bu rëy wala ay combat yu rëy la dajale def ko benn journée tëgg na ñaqi jariñu ak kéwal ñoom ñooy bëri grand combat bi wala euh, war waaye avant combat boobu capitaine Dina ak Sanderep dinañ fa daje ñoom ñooy euh, bëre avant dernier combat bi loolu nag mi ngi am le 7 août di ñëw Khadim Samb mu ne daf ko fas yéene def euh, fête nationale moom nag euh, fas yéene na fa décorer ñëpp promoteurs yi nga xam ne nii promoteurs yu mag la mën nañ ko wax ki ci mel ni Gaston Mbengue Serigne Modou Niang Aziz Ndiaye ak Luc Nicolaï ñi ñëpp bëgg na leen euh, décorer le jour ji waaye ci échange bi Khadim Samb amal ak journal suñu lamb revenir na également ci combat bi doxoon diggante Alioune Seyde ak ñaxi jariñu te mu yàqu wax na ci lu bëree bëri wax na également lan moo tax mu nekk promoteur traité. yemul foofu nee na kii kii di ni moo njëkk tëgg kombaam bi mu ñëwee ci làmb ji. loolu la wax. ca noonu nag box arena lañ jëm ak journée yi ñuy jëm amale kii di Franc Tyson 2 Mama Lamine Garga 2 vers 1 9 juin de tout les dangers Mbaye Babacar. mu nar a nekk nekk ay combat yi nga xamante ne bii amateurs yi ñu ngi koy bàyyi xel di ko xaar mu nar a dox ci diggante Franc ak Tyson 2 Mama ak Garga 2 di yi nga xam ne Vox Arena suñu naataango yooyu nga xam ne ñoom tamit dugal nañ seen loxo ci làmb ñi ngi préparé seen journée bu mag boobu. Alioune Badara Diop patron Vox Arena moom moo tëgg combat boobu war a dox ci diggante Franc ak Tyson 2 Mama Lamine ak Garga 2. mu prévoir nag combat boobu le 9 juin mu nekk euh, combat bu journal suñu làmb euh, des journée de tous les dangers ndax six choc euh, ñoo fa war a am ginnaaw Tyson 2 ak Franc Mama Lamine ak Garga 2 Noiro ak Moustique dinañ fa daje allience Biram ak caatu ngéwal dinañ fa daje kii di Fourier ak Baye Mandione Junior timit dina fa daje Baye Mandione Junior ak Fourier bi nag combat boobu les reporters leen ko parrainé kon Babacar yow yaa ngi ci biir. ah su ñu bis la incha allah. koo ko waaj bu baax a baax a baax di leen wax ne nag waa Vox Arena fa ñu wokk xasan na nag. ñu dee la ko seen loxo ah. wallaahi incha allah te danañ xam ne ah tudde nañ ñu mot a tuddee bis nag. décédé dimanche à l'âge de 74 ans. kii di Ndiaga Sarr denc nañ ko fee ca suufu Pikine ya démb Mbaye Babacar. la génn àdduna nekkoon champion bu mag dëkk nekk dëkkoon foofu ci waalo Assane démb mu génn àdduna ñu ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yërëm ko te jéggal ko di ko jaale ay mbokkam. dëgg la Mbaye Babacar euh, Ndiaga Sarr tur bi xam naan ko ndax am na moom la dafa bam paree carrière am dafa fondé écurie tuddee ko Ndiaga Sarr mooy nekkoon également directeur technique écurie boobu mi ngi décédé nag de 74 fukki at ak ñeent Babacar noonu la mm-hmm. voilà dimanche bi passé la génn àdduna ci hôpital Fann moom nag mu ngi nekkoon écurie Waalo foofu la doon euh, bëree journal suñu lamb nag revenir na ci carrière am nee na moom combat bi ko gën a marqué mooy combat bi mu daje woon ak Papa Kane loolu en 1972 da xewe woon nee na bu gën a ngande bu mu encaissé ci làmb 200000 la cachet bu gën a ndaw bi nga xam ne ni encaissé ne ko mooy 10 000 waaw xoolal loolu rek te ñoom dañ doon ñoom dañ doon mag ñi dañ doon bëre. ngir honneur daawuñu bëre ngir li nga xamante ne bii moom mooy koppar. exactement. jamono nag day dox fi mu toll nii xaalis moo xew. xaalis moo xew de sens su booy la également sponsors yi dugg ci euh, réseaux sociaux yi ak euh, télé yi lépp dugg ci il normal que cachet yi ak ci fii ñu toll. dëgg la Assane. réouverture stadium Iba Mar Diop pour solution nécessaire pour sauver les tous les combats Mbaye Babacar mu mel ne suñu ubbee boobu le stade rek làmb yëpp dinañ mën a suñu làmb moo koy bind loolu nee na ngir promoteur yëpp yi nga xamante ne bii taxawal nañu ay combat ngir ñu mën a am ay date il faut ñu ubbi stadium Iba Mar Diop di stadium ba nga xam ne Assane. neex naa seetaane làmb ba pare amateurs yi sawar nañ ci di fa dem nee suñu làmb nag li mu bind nee na il faut ñu jëm ko ubbi ngir promoteur yëpp mën a am seen i date nga xamante ne bi ci lañuy amal seeni i combat dëgg la euh, mbay Babacar stade Iba Mar dafa bokk ci histoire làmb euh, champion yu bëri jaar fa te accessible na boo fa jógee bu làmb tasee foo jëm man nga am oto ñibbi looloo taxoon euh, la waa làmb gën bëgg stade boobu léegi nag comme ren journée yi dañoo bëri ndax CNG du vingt cinq mai au ou août yëpp date yi jël nañ ko donc date amatul date yu bëri nañ te bu dee arène nationale rek date yooyu mënu leen a tenir looloo tax ñu def proposition pour que ñu bi waat stade Iba Mar Diop mën a yi dérouler foofu seen journée euh, loolu nag buñ ko waxee mataar Ba journal suñu làmb nee na Matar Ba dégg na ne moom d'accord na ci idée boobu pare na pour ubbi euh, stade Iba Mar Diop pour promoteurs yi waaye également dinañ ci waxtaan xool finalement yan proposition lañ ci jël ba mën a permettre journée euh, yi nekk ci làmb ñu mën ko dérouler dérouler loolu su amee dana nekk lu gën ndax journée yi bëri nañ combat yi bëri nañ te avance bi yàgg na ci loxo mbër yi bu loolu mhm. amee rek dañ mën a libéré ñu bëree bëri wallaahi dana arrangé mbër yi dana arrangé promoteur yi tamit dana wante tamit dana neex amateur yi mhm. Mbaye Babacar drapeau chef de l'état à Kaolack un CRD nécessaire pour la réussite de l'événement Mbaye Babacar suñu làmb moo koy bind loolu incha allah mu nar a nekk CRD ba nga xam ne foofu ci Kaolack la ñu koy amale lépp jëm ci euh, drapeau chef de l'état bañ foo war a amal nag incha allah bu ci yàlla àndee diggante le 28 le 29 ak le 30 mai foofu ci Kaolack ngir événement boobu mën a mucc ayib il faut ñu amal benn CRD Assane foofu lañ ca Kaolack incha allah bu ci yàlla àndee. Mbaye Babacar CRD boobu tey lañ koy prévoir foofu ci gouvernance bu Kaolack CRD boobu nag ki koy moom mooy gouverneur bu Kaolack. tudd Alioune Badara Mbeng Bira Sène dina ko teewe ak euh, président CRD bu Kaolack di Maam Kor Faye CRD boobu nag euh, dañuy def dañ ko def pour préparer vingt et unième édition bi nga xam ne nii moom mooy drapeau du chef de l'État bi xam ne nii dinañ ko dalal ci Kaolack di vingt huit au trente mai euh, boobu moo nekk nag vingt et unième édition bi donc balaa ñu fay àgg waa CNG dem Kaolack pour étudier terrain bi xool ba xam amul ay failles yoo xam ne ni le jour yi mën na leen a ci événement bi. ci noonu Gabar Singh école de lutte Pape Kane bañ ko invité ci nga xam ne mooy rubrique Leewtoo avec mu ne kii di Balla Gaye numéro 2 mooy lutteur am préféré Mbaye Babacar. Gabar Singh moo yëkkate yooyu la kàddu nekk mbër nga xamante ne bii macha allah ñu bari ràññee nañu taxawaayam ci wàllu làmb ji moom nag tey euh, suñu làmb daf koo dalal ci rubrique boobu ñu tuddee Leewtoo euh, bi ñu ko dalalee nag li mu wax mooy Balla Gaye numéro de bu duubalees moom mooy mbërëm. préféré loolu ku nekk sañ na ko pompiteer moom a gënal pataas ku ñu ci yóbbu tribunal bu la jàppee sa avocat moo baaxul. dëgg la Mbaye Babacar Gawar Singh nekk écurie Papa comme ni nga ko waxee. Leewtoo rubrique Leewtoo bu journal suñu làmb lañ ko invité tey li nga fa xam la rek nee ne Balla Gaye numéro 2 moom mooy lutteur préféré ndax. moom moo la yàgg fan wax na fa également combat bu ko gën a marqué ci adunaam nee na combat Tafa Gueye la ak Khadim Ndiaye 1 ñoom ñaar nee na seen combat boobu ñu defoon moo ko gën a marqué wax na également plat bi mën a cuisiner nee na maafe la maafe daal mën na ko togg wax na également objet indispensable maanaam objet boo xam ne nii mënul génn këram te du ko yóbbaale nee na portable am fu mu dem dina ko yóbbaale Ndeye Mbacke. na ci morom nag. bëri na ci dañ koo tàmm. Mhm. mu ngi noonu 13 juillet incha allah kii di Doudou Fall dina fa janoo ki nga xam te ne nii mooy George Bouss mbay Babacar. Assane Ndiaye borom euh, Bawol production moo taxawal boobu le combat diggante George Bouss ak euh, Doudou Fall di am incha allah le 13 juin Assane di combat ba nga xamante ne bii incha allah bokk na ci combat yi combat yi amateurs yi xaar wante nar a nekk combat bu neex incha allah bu ci yàlla àndee. dëgg la Mbaye Babacar George Bouss nga xam ne ba mu gëjee bëre yàggul jël amee ci victoire. moom moo war a dajeek ak euh, Badou Fall mi nga xam ne caaro yi la nekk euh, George Bush nekk écurie Bada John ñoom ñaar nag ñu ngi war a dajee le 13 juillet comme ni nga ko waxee Assane Ndiaye moo ko tëgg mais lii du grand combat bi grand combat bi mi ngi war a dox ci diggante Fils de Balla bu Balla gay ak euh, Général Malika ñoom ñooy grand combat bi donc George Bush ak Badou Fall ñoom ñooy bëre avant dernier combat bi mm-hmm. mu ngi noonu Assane Wala maa lay jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi mbay looy tàggatoo xanaa amati mbégte ak contentement rek jaajëfal suñu mbokk yi nga xamante ne bii ñu ngi ñu doon topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam ne tey xonq nga de yaa ngi mel ni kuy maye jiit rek. neel xonq nañu <laughs> maasaaleel ñun ngi Assane Wala. ne Mbacke di la remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier internetu Leewtoo TV Leewtoo ak Yacine Fall équipe bu Leewtoo yëpp di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. bu ñu ko jàppee Mbaye Babacar la mooy géwélu Leewtoo ñuy dem moom la ñu yóbbu mooy borom làmmiñ bu saf bi làmmiñ bu ñaw bi. macha allah mu wax rek jàmm la <laughs> nag damay tàggatoo ak yéen di jaajëfal sama équipe technique bi Fama kii yi nga xam te ne mooy Yacine Fall sama caméra woman bi kontaan moom loolu Bamba bég naa ci yow. sama lonko bi bég naa ci yow de lu mu dawul rek nee naa leen bëgguma Mansour Fall amal jaam bu baax di sant di gërëm sama xeese booy bi. ki nga xam ne mooy Aida borom Leewtoo TV maa ngi koy bëggee bu baax moom sama tata bi na Nafi kontaan naa ci yoom matu plaignante bi bëgg naa ci naa leen jaajëfal te leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.